ñetti waxtu ci gannaaw. Eh, waxtu koomaatu demandi. la président Jammeh joxe woon ndégtal. ay eh, yaamari doon jee. mu ebal ñu. ke Samba. ak um, ay contractors. avec contractors. ñu dem seet barab ba. ka si bañ paree ñu def seen um, seen design. mbir yéen a design ol ke. def seen costings. yéen a cost beeke. pour li mu war a jar. a ñanta jar la mel na. ak diir bi mu war jël yëpp. ani ñanta men beeke la jee. bañ pare ñu yóbbu walaat ko ko. mbiri yaa mu joxe leen ndig ndégtal. ay yamaroo di. ñun ak finance. ital ñu liggéey ko. ye jeedoo kon loolu. taatu leen. wo kon loolu euh, boobu moom pare na féetoo na boor. a woto mu dulaanti mais alon ko besa janne pare da woto la waaye ma bugg fàttali waa Gambia. alanta gambiyanko latiro bulan la franklin la ne tubaab bi nekk na fi ñeenti téeméeri at tubaabol bi jàng sanji keme naani am na beneen nguur bu fi nekkoon fanweeri at ak lu ko teg masakunda doo bi la sanji tan sabanin fula ma ne loolu yëpp nga boolente ko nuyool bee kafu ñooma nga tollale leen ak fukki fukki at ak juróom-ñaar yi nga xamante ne président Jammeh toog na ko yéena sanji tànn waraw la jubee bi président Jammeh siita ñim bankoo nga gis ne lim fi def ñooñu ñeenti téeméeri at ak fanweeri at ak ñaar defuñu ko atay men ke sanji tan ni wolowula kono ye naani sanji keme naani sanji tan saba ni fula julo woli wolima fenke me ye atala ni tan ni wolowula aussi lama wax ne abe ñin fola ko university of the gambia university of the gambia su fekkoon ne ñooñu tabaxoon nañ University of the Gambia. niŋata ko wo moo le University of Gambia loo nuŋ. président Jammeh su ñëwee. lim fere si University of the Gambia. a ah, président meŋ kɛra dinañ ko defaree yooni Serekunda. Isaaja ma ne dama ne GRTS. a ah, ko GRTS. su fekkee ne defoon nañ ko. ni a ah, a dara nuŋ. nguur gi paase. masa kunaa meŋ tambita. président Jammeh su ñëwee. DRTS xaalis boobu wo kodoo dinañ ko doon liggéey yoon yi sinin si loolu doo ku noo wala la dama wax ne ako school si ako din karambongolu universities university project si fi nekk projectol men beebi jàng ne su fekkoon ne nekkoon ko fi ni nga tara koytele wolu gele nun jàng li xaalis boobu yëpp président o siwol tano le bi soppi dëkk bi yaa keñum banko saatolu yeleman mu raw yeneen dëkki tubaab yi ñii ay tambi banku côté ngol la kon ma wax leen ne bala si ñim faalee ko ñu xam ne li ñu am nga men soto mu ni président Jammeh même mu président Jammeh di ak xelaatam ana la niiroo ak jëfam ñu rafet ana la dokku ñu ma dañ ko war sante yàlla ñanda tentu la le ñu ñaanal ko bi nga xamante ne jóge nañ commencé nañ taw bi ba léegi. bi nga mu taa yi. liñ gis fees na suñ bët. nga mën jaay ñaafa. ñun xam nañ ne politique amut fii. nga loon ne politique man soto jàng. ñun xam ne problème bi. nga loon ne ko problème moo problème bi du problème mu opposition. ndax kay ñoom ñoo am problème. waaye ñun amuñ problème. ngir président Jammeh. waaye ah kay am nañ problème. mooy ñun APRC. li ma daan wax di ko waxaat. aka même fa aba fola. nañ leen raxas suñ xol yi. ale ngan sisol ko ngan yole senea. nañ leen yaatal suñ xol yi. ale ngan ngan yol sisol firiñ. ñu wecci suñ jikko yi. ngan jikkool faliñ. waxtu bu président Jammeh di wax. di wax lu ko métti ak lu ko naxari. men ngaa di men ani men mbon diya. surtout ñu ndaw yi. sako fonni kewlu. mooy nañ wecci suñ jikko yi. ngan jikkool faliñ. suñ jikko yi yàqu na. jikkool tiñaata. jikko yi tilim na inota moo ci kanam wala tinna mantaano ñaato dama wax ne dëkk bu ndaw bi akoni saatendingo buñ soppante woon bugante ni nga ñoo kanu lafitañoo la jàppalante nga mutañoo fee dinañ mun a romb fii nii mbe tambinoo la jànnale ndax xooli président Jammeh passé na fii waaye président Jammeh la nga ñëw na la xamoo tambina jàmm ma ne suñ gisee kuy daanu ni nga menjaabe boy la nañ ko jéem a ekkati ni a daaneel nañ leen yéene wante jàmm dañ leen jàppalante ñu suturalante ci kaw bii yàlla moom la taggee yonent bi. kila sallallahu alaihi ko ci leneen lu dul jikko bu rafet amake ah, ku kam bu rafet dinañ soppa réew dinañ soppa njiit dinañ ko jàppale sa mudafe dinañ yéene wante jàmma si kayro nga ne ñoo suñ defee loolu liggéey ànd ak président honorable minister jokuba a ako président Jammeh sadje nga mu fee kon ñu leen di gërëm ayal jayi di leen santa ayal tentu di leen baalu axa ayal hakkodaani salaam assalaamu aleykum Jammeh Moussa euh, principal teachers Wi-Fi. To start with, Sukuta Lower Basic, Sukuta Upper Basic, Sukuta Upper Basic,